mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi toog ak ki nga xamante ni mooy champion chef de l'état muy Serigne Ndiaye 2 nekkoon capitaine équipe bii di dakaar ñu koy féliciter bu baax ndam li nga xamante ni yóbbul na ko waa dakaar mu jël euh, champion chef de l'état jël individuel bi jël open bi tey ban yëg-yëg nga am Serigne Ndiaye 2. waaw mais sant yàlla bu baax direction bi sant suñu ñaar waajur xam nga di nuyu suma écrit waa suma entraîneur suñu baax Tafa Gueye béykat yi xam nga Père Seck xam nga Socé Ibrahima Mbaye du nuyu sama coach yi may Jo xam nga Père Kanté Kanté Bojan Max Bori xam nga du nuyu ñëpp daal. drapeau chef de l'État bi nga koy waajal wàccaay bi ban moment nga dugg regroupement ak nan nga doon entraîné ci koor gi. waaw regroupement am na fa douze jour douze. voy Korité lañ dem Korité après Korité parce que lendemain bi ñëwaat encore. franc regroupement après départ mercredi lañ ñëw fii waaw lañ ñëw fii Diourbel. fan nga korité. sama kër. bi ngay di waajal chef de l'État noo ko doon dundee foofu ak famille. ah mais comme d'habitude rek man damay korité rek ngoon dem entraînement tabaski ngoon dem entraînement comme d'habitude rek laa ginaar ngoon dem saal après xëy suba nekk si sama nekk lu ci làmb ñu bëree bëri juumuñu parce que joxoon nañ équipe bi di dakaar favori mais ngeen doon favori ngeen ñëw ci compétition bi ki nga xamante ni moom lañ gënoon yaakaar muy Tony muy am ay defet rek di daanu moment boobu bu ngeen demee ci kër ga lan ngeen waxtaanaat équipe bi ak esprit groupe bi nu mu demee woon. waaw mais mooy mooy li ma man damay sant samay samay booy tey nga nekk regroupement ak say ak say nawle say nawle mbër boo indee dara jox leen ñëpp utiliser sans dépense ñooy tëddandoo ñooy lekkandoo ñooy defandoo lépp ñuy wàññi poids am courage boo xam ne doo comprendre saa ko si nekk tey boo ñëwee boo waree wàññi poids boo waree lekk salade bu ñu tegee ginaar sa loxo du ko laal donc loolu motivation la courage la. Tony àdduna yëpp ku ne xam ne ne champion la ku xam ne ne jàmbaar la ku ne xam ne ne même bu ñu bokkoon équipe bokkuñu woon dara lii dal ko damay am lu sama xol. parce que ku ne xam ne Tony champion la mbër kaamil la macha allah mën na li may def te saa bu duggee daal dama def mu am ko mais bu ñu ñëwee tey vendredi samedi kenn xam ne ko ndeysaan donc loolu dañuy métti ñun mais nag suñu borom moo fi ne. tey waxtaan bi ñëpp ku nekk jug xam nga secondé ko poussé ko vers la victoire démb si di waxtaan ba trois du matin ma ne ko ma équipe bi yaa ma ne man booy xool ma nag noppal mu jooy mu ne billaahi wallaahi taalaahi damay nekk kenn su ma nekk mu suba waxta bu mu ñëwee koo fi mu loolu waaw di ko ñaan yàlla lafa cat nag. mais war a bëriwaat ci digg géew bi bu daanee. Dakar jël drapeau chef de l'état bu ñu ko daanee da ngeen di toppaat compétition bi ba tey bi muy dugg amoo benn doute ci diggante Tony baax na wala baaxul parce que moment boobu mu ngi naan Tony ñëw na Tony ñëw na mais ñun comprendre ñu luy Tony ñëw na. non non amul doute parce que am lu ñu fanaanoo am lu ñu yeewoo waaw ah, macha allah am na ñuy yendoo loo xamante ni saa yi loolu beneen affaire la beneen beneen affaire la ak ndimbalu yàlla suñu borom bu baax baax a baax du nuyu nag. stafu Dakar bi yëpp ñu bu baax di leen sant di leen gërëm. yéen bëggoon ñu leen sant na suñu Papa du Ndiaye Diecko ak képp koo xam jàpp nga ci région Dakar ñu si jàpp nag pour région yëpp. parce que bu ñu nee chef de l'État région bi dafa indi cinq mbër tey mbër ku si ne nag am sa kër baax am sa yaay mais lamb bu ko duggee ba amul làmb mais bu bëggee mbër teg si bon état ci fekkee teg si bonne condition région bu ne tey ñàkkul trois wala quatre autorités yu mun soogoon a jàppale seen ay mbër. ñàkk ko mais mm. day gis ay ndaw la mbër yoo xam ne ñëw fii nga xool ne xam ne ñii nekkoon si bonne condition pour jël làmb mm. doxul dañ jéem a fexe région bu ne ku ne jéem a fexe jàppale sa équipe. mais yow mbër ci condition boobu est di nga jël drapeau chef de l'État. ma ko doxee day am mm. affaire yi moom su loolu la. mais tey boo nekkee si bonne condition ñaar sa naw la mbër dem nekk si bonne condition. parce que loolu mooy tax suba ak gannaaw suba àddina neex àddina mën bil daal. mais moo nekk si moom condition ñaanal kii nekk si safaan àdduna quoi. Mm-hmm. démb da ngaa bëreeg euh, Doudou Sané éliminé ko ci open bi demi final tey ngeen ñëwaat nga éliminé ko final individuel bi mu des finalu équipe bi ñëwoo bëre nga ne da ngaa blessé est ce que blessure boobu mun nga ñëw wax lan moo la gaañ ak blessure boobu est ce que dëgg la ci yow. barke Mouhamadou Rasulullah moom si lamb du ma waxoon si moom moo gaañ démb. du ma ne du ma tey ko nag la sport de combat la mais damay gérer loolu bëri Abdoulaye Ndiaye di gàj naa si dama gérer te boo waxee sama combat yi di ma ko gérer te nga am Serigne Ndiaye quelque chose mais sant yàlla bu baax nag. da ko gérer nii. waaw ak dama ko gérer. ñi nga bëri dama ko gérer bu baax a baax parce que ñu bëri tey yaakaar naa te doo bëri. nga ji li. waaw sant yàlla bu baax ji li. bu euh, nekkoon 2-2 bu nekkoon 2-2 Serigne Ndiaye nooy def. bakkan bi lay tayle. bakkan bi ngay tayle. waaw lu tax tayle woo ko nii nii. non nii mu amul sens. parce que jël nga c'est fini. damay yow su ma dem hôpital faju ji am na res mooy loolu. Doudou Sané bi muy génn jooy na jooy yu métti. ci ci ci ci stade bi lan nga koy wax. non bu mu jooy. àdduna moo demee nii li xew suma kenn xamul. barke alxuraanu kay sama xol bi yéen moo ko si lu bon barke Muhammad Rasulullah ku jege ma si waat bi. champion man damay sawar a bëri moom. parce que moom champion la mbër la borom la. du ma taay di ko wax. mais ma koy conseillé na bàyyi di wàcc làmb loolu bu ko dara jaay àdduna làmb kenn xamul lan la. daa waat ni dalay tax. rek mooy loolu. du saane xale nga. mu ñëpp ay xale lañ mooy génération ay un an mais bu xoolee macha allah espagnol daaw ak ren macha allah say mbokk jàpp say entreneur jàpp sa ñi ngay àndal parce que bëgg nañ te yàlla tax mais làmb kenn xamul lan la champion nga mbër nga kenn newul da nga ragal kenn newul da nga yaafus kenn newul gaynde waaye tam ki nga daan tamit wax yàlla da la war a daan bon soo ma daanee damay si félicité la dem si noonu làmb la ay naataangoo lañ mais nañ rafet mbër dafa am solo quoi jéem a ñu xumbal yëngal supporter yow lu mu ñàkk pot neexal làmb ji moo tax mais au fond non barki alxuraan jàmm sam laa yéene ak ngi gis mbër yëpp ñu ngi lay ay Boy Faye parce li nga xamante fas yéene féete li nga xamante ne mooy champion chef de l'état bi nga xamante ne jël ngeen ko indil ko Dakar. loolu man pare naa de. man moom pare nga ci waaye li ngay def. ah boo jëlee waaw genre féete moom mooy jël daaw a seetlu jox si kilifa yi loolu laa mën mooy kaa comme yàlla jox nañu ko alhamdulilah rabbil alamin demain je continue mes entraînements xool na e. waajal bëre dóor bi ah oui tamit foo ñoom combat ngeen est-ce que du am combat parce que Serigne ni ngay def ci lutte traditionnelle bi est-ce bëre dóor bi gars yi dinañ la jël mbëri nag moom vraiment nag mbëri moom xaw ma affaire bi nga ah waaw man waar rek ñeen ah. wala ñu bëgg ma émigré ji bokk ñan bëgg man ah. maalum sedd waay. ki dëkk Diourbel Eumeu Sène Junior dañ doon dox seen combat yéen ñaar. non ko dox. buñ ko joxee. kan ku. ndeysaan ma <laughs> jug na dem maa ngi koy jaajëfal bu baax.